réew du souverain économiquement ni politiquement euh, ci ben fan su dee jiitaloo amul ben réew bo xamni tekki na te tekkiwul en mettant en avant lakam kon euh, priorité majeure pour le chef de l'État motax mu def ko donc un mois euh, national donc de l'alphabétisation té nak nek na mois bo xamni parcourir nañu réew mi gox yu bëri gis nañu difficulté yi mais gis nañu tamit avancé yoo xam ni wax dëgg yàlla euh, langue nationale yi ñu ngi koy am euh, may joxe exemple Podor boo xam ni euh, en Peul dafa am ay disciplines scientifiques yoo yu ñuy jàngal suñuy yaay suñuy pap ñoo xam ne amuñu chance jaar ci école classique bi donc tey jii ñooñu sont devenus des acteurs majeurs au plan économique au plan industriel donc loolu la alphabétisation de jëriñ La question justice la question équité la question aussi la euh, dimension bi am solo qui président limo mu dembe qui ci référentiel Moi l'importance du capital humain Sous le capital humain dafa am solo ben yàqu ci sax day donc fait pour doomu aadama nek, sa ce yi ce da ngay góorgóorlu pour talent bi nek ci mom compétence ci bi nek ci mom nga jël ko indi ko mu dugal ci loxom kon capital humain moom moy transformer rew motax il faut se donner les moyens pour que capital humain bobu nek capital bu baax bi motax nak ki di lak jola euh, nga jox ko joolaa bi mu jàng ci kii di làkk pël jàng ci kii di làkk wolof ak leneen ak leneen et tey jii loolu mooy option chef de l'État gis nañu nag ni vraiment il y a des avancées mais li ci gën a am solo mooy orientation tey jii yoo xam ne état encore une fois jël na ko euh, Demb wax na ko ci référentiel bi euh, avant Demb wax na ko décision bo xamné ne mois national bi et ak lo xam ñun dégg nañ ko et d'ici 2029, l'objectif est objectif complètement li jeex fi question ou analphabétisme jeex tak ci réew mi euh, c'est tout à fait possible et on se fera aider inshallah avec ak technologie BSI, l'intelligence intelligence artificielle bi numérique bi loolu mais surtout nak ak volonté wu euh, acteurs majeurs Euh, sànq yi nag may laaj ci wàllu financement bi Euh, nañu yaakaar ni financement bi dina gën am solo c'est vrai que boobu c'est un environ Mon rek lañ consacré mais naturellement attention boo xam chef de l'État jox euh, importance du mu jox capital humain ci référentiel bu bees euh, euh, souveraineté boo xam ne dafa am solo ci sunu politique tax euh, inshallah euh, budget bi budget bi déjà pour le ministère de façon globale, mais aussi de façon plus spécifique euh, par rapport au, à la, question de l'autorisation, parce que la majorité des Sénégalais, malheureusement, euh, côté Bobo, lañ leen mën a donc euh, xel dal na autorité yaa ngi sunu wet euh, technologie baa fi volonté baa fi attention baa fi donc euh, lépp mot na daal incha pour ñu accélérer la cadence et puis être beaucoup plus performant ci transformation école transformation sunu société en qualité et puis avoir donc un capital humain de plus grande qualité